ñu leen di nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel ci wasaare làmb ni ko safoo cant ak gërëm ñeel na leen dellu siwaat nañ nag comme niñ koy defee saa su nekk bu fekkee ne soxla am na euh, mbir am na wala ñu am lu ñu dëgmal euh, dañuy faral di def euh, genre yi ndaje yu mel nii waxtaan ci ak yéen ba ñu xam li ñu dëgmal wala li ñu nekk lan la def nañ ko lu yàggul ci arène nationale beeg solution yi nga xam ne indi woon nañu ko ci ñu ngi koy waaj a def aussi ci euh, CNG de lutte euh, ki koy jiite ak kan la ñu jàpp ne tey moom la ñuy teg ci bopp bile structure mais aussi événement boo xam ne moom la ñu dëgmal ci la ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci nu mu gën a yaatoo mbokk yi association bu nekk ci làmb muy association bu ñuy wax axlu làmb Sénégal moom moo woote le 8 novembre fële ca Saly ci journée boo xam ne journée làmb la. journée boo xam ne làmb moo ko moom làmb lañu koy defal mën naa ne sax làmb la ñuy delloo jukkal ndax ay acteurs am la ñuy delloo njukkal ci journée boobu mbokk yi bari na ñuñ ca fas yéene décoré muy sargal sax en général ndax tey ku organiser journée bu toll noonu war sargal ay tambour major war sargal ay wéykatu làmb yoo xam ne yàgg noo bëggal amateurs yi ak mbër yi war sargal ay mbër euh, donc dama naan loolu làmb moom moo ko moom te cëru làmb la aussi euh, association bi mbokk ñu bëgg see ñëw rek ci lu tuutee tuutee tuuti muy association Ahlou Làmb Sénégal di association boo xam ne yombul ñuy gis bu mel noonu ci réew mi yombul ñuy gis association boo xam ne noonu la ñuy doxale ci seen liggéey ni ñu structuré association bi mais aussi seen vision fa ñu jóge ak fa ñu jëm ak li nekk ci seen seeni plan d'action donc mu nekk association boo xam ne tey làmb bu ci amoon ñaar walla ñett Euh, pour mu développer lu yomb lay nekk ndax axlu làmb Sénégal tey groupe WhatsApp la boo xam ne ñi ci nekk bari nañ takku nañu lool mais ñoo bokk di xàcceendoo di tegandoo lépp loo xam ne luy jëmale làmb kanam la rek ñu ngi ciy bay seen waar te pourtant bari na si ñoo xam ne euh, dem nañ ba am ay lien seen biir nekk ay ay mbokk wala ñu nekk ay xarit di jëflante te mosuñoo gisee di jëflante te kenn mës tax mën mënta xam sax sa morom fan la dëkk wala mosoo faa teg sa tànk te li ko waral mooy daje gu ñu daje ci biir association bi benn cadre de vie boo xam ne créé nañ ko fa mu permettre leen ñuy nekk ci jàmm mais aussi di di waxante dëgg mais aussi di bokk bëgg-bëgg di développer làmb ji nga xam ne nii ñoom ñëpp moom mooy seen nattu parce que nag bu ñu nee axlu làmb Sénégal dañuy wax amateur de lutte yi nga xam ne ñoom ñoo booloo nekk benn ñuy rafetlu initiative boobu mais yemuñu foofu. ndax mënoon nañoo nekk benn groupe whatsapp boo xam ne dañuy bégalante saa yu mbir amee jóge ci làmb ñu dugal ko ku ci nekk bége si wala boo seetaanut làmb ñi nga xam ne nii ñu ngi ci làmb ji dugal ay vidéo wala ay woyi làmb nga bégal sa mais yemuñu foofu dañu am beneen tànk bu ñu teg mooy développer làmb ci seeni forme ñoom seeni forme mooy lan mooy képp koo xam ne nii ci làmb nga ne di ko suuxat dañ lay dalal ci groupe bi waxtaan ak yow ñaaxaat la wala li ngay liggéey Sénégal yëpp gis nañ ko mais ñoom aussi teg nañ ci seen bët encouragé la képp koo xam ne jàdd nga yoon ngay mbër ngay encadrement mbër wala ngay leneen dinañ la recadré waat invité la recadré la delloowaat la à la raison ba nga xam ne mbir mu ñëpp bokk dañu koy pencoo donc loolu mu nekk action bu rafet mais beneen bi dafa gënati parce que dañoo dem ci volet boo xam ne cëru CNG la woon cëru association des écuries la woon cëru association des promoteurs la woon que ça soit promoteur euh, de la lutte sans frappe wala lutte avec frappe mais cëru association des amateurs la woon que ça soit amateur euh, lutte frappe beeg lutte sans frappe bi mais kuréel yooyu tey mën naa ne seen cër la mais Ahlou Lamb Sénégal dafa ñëw indi benn journée boo xam ne def nañ ko daaw du conclave mais journée la boo xam ne dañ ci sargal mbër yi nga xamante ne nii ci saison bi def nañ ci liggéey bu mucc ayib te pourtant loolu mën naa ne CNG tey mënoon naa def benn journée comme na mu ko defee woon la fois passée organiser journée sargal mbër yi organiser journée sargal promoteurs yi organiser journée sargal tambour major yi mais foofu association Ahlou Lamb Sénégal da cee def liggéey bu mucc ayib parce que da ko def def ko cëru boppam ndax ñoom ñooy suivre làmb ji mbëru mbapat bu leen réer bu ngeen posé question bi ci groupe bi ñu wax la ko ak jamono bu mën di nekk nag parce que ña fa nekk seeni niveau. ni mu wutee noonu lay seeni âge wutee aussi ay maga fa ne ay xale fa ne ay responsable ñoo fa ne ay nit ñu bëgg làmb ñoo fa nekk ñu dëgmal événement boo xam ne événement bu rëy la le 8 novembre fële ca Saly ñu fas yéene ci sargal nag ay mbër mbër yoo xam ne ren def nañ liggéey bu mucc ayib tey ci ñetti catégorie yi nga xam ne tànn nañu ko muy ci catégorie lourd fas yéene nañoo sargal ordinateur ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy liggéey mais aussi nekk ndaanaana ku ko tudd rek dangay xam ne ndaanaan bu tudd ndax bañ nañ ko ba àll bi dañuy naan mooy boroom ñu war a sargal aussi ci luuri rajaxe nga xam ne moom it kàngam la ndaanaan la wane na boppam def na ay preuve am ñu war a sargal aussi ku ci mel Toubacouta nga xam ne jëmm mbër ja rek boo ko gisee nga xam ne kii war na mën a lekk dara ci làmb war na mën a nekk dara ci làmb mais ci catégorie lese bi aussi Karim bu Joal moom la ñu fas yéenee sargal ci liggéey bu mu bu mu liggéey liggéey bu mu ci ay dana ñëw nag ñoom ñëpp seeni seeni seeni performance ci saison bii nii donte saison bi gàtt na mais da ngeen di gis ne saison bi li muy gàtt gàtt mbëri liggéey nañ liggéey bu bu ordinaire am na beneen mbër boo xam ne fas yéene nañ ko sargal ci catégorie lourd ak léger muy géant parce que gis nañ ko mm, compétition léger yeeg lourd yi bu ci nekk bu demee day wone boppam day wone ay preuve ñu gis aussi ñu war a sargal ku ci mel ni Pakala nekk magu làmb ci fair play moom fair play lañ koy sargale parce que bokk na ci mbër yi nga xamante nii léegi ay mag lañ am nañ expérience yàgg nañ ci làmb mais mosuñoo yàq làmb saa yu leen daanee même ki leen daan bu nekkee seen jarbaat wala seen moroomu doom sax day jóg faxasu félicité la génn làmb ji dem amul kenn ku mës a gis ci làmb ñu ne la pakala bu mbuur mooy yàq làmb ji wala moom mooy xuloo wala mooy xeex donc loolu geste bu noble la association Akhlu Lamb Sénégal fas yéene koo primé fas yéene koo sargal loolu aussi ñu ngi koy rafetlu te seen choix ci ki ñu ko porté mën naa ne juumuñu te ñi ñu filim yëpp sax amul kenn koo xam ne nii porté nañ seen choix ci ñoom ñu mën a am jiixi jaaxa tey ci wàllu mbër ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ancien ci làmb ji période bi continue di bëre ak seeni jarbaat ak seeni rakk ak seeni doom bokk na ci Mamadi jaay ak Seeku Diouf donc ñooñu aussi dañ leen di sargal parce que yàgg nañ ci làmb gunge nañ seeni moroom gunge seeni rak bëgg ba instant bi ñu ngi gunge seeni jarbaat te pourtant saa yoo leen gisee njàmbaar la ñuy wone garmi la ñuy wone fulla ak fayda la ñuy wone mais jom la ñuy wone donc foofu axlu làmb Sénégal mën naa ne sànniwuñu aussi seen mbaal mais ci biir loolu tey bu ñu xoolee euh, njool géant bi nga xamante ne nii moom la ñu fas yéenee sargal ren 16 drapeaux moom la am 16 drapeaux la am ci lutte simple catégorie poids lourd ak poids léger tey demee ci catégorie poids lourd bi de jël na benn drapo ci jàmm gën jël na drapo ci sum jël na drapo ca xalambaas jël na drapo ca njool jël na jël na drapeau ca euh, ndudox jël na drapo ca kër soose jël drapo ca ditax jël drapo ca njaga euh, ñaaw jël drapeau aussi ca ñagel ñaari yoon jël drapeau ca tubaab jalaaw en catégorie poids lourd mais ci poids bi aussi fële ca caareloo jël na fa drapo buj jël na fa drapo Combi jël na fa drapeau Njaay Njaay Fatick jël na fa drapeau Kumbal jël na fa drapeau Njaafat Séeréer aussi jël na fa drapeau moom Ndiol Géant donc kooku 16 drapeaux yoo xam ne gagné na ko ren ak fii saison bi tolloon ak période bi nga xamante ni ñu ngi ko doon vivre c'était pas évident donc félicitations à Ndiol Géant mais aussi félicitations à Axlu Lamb Sénégal bi nga xam ne ñoom ñu ngi wër làmb yi di détecter booy yi di xam ñoom ci ban niveau la ñu toll ak compétition mais Toubacouta onze drapeaux la jël en catégorie poids lourd donc ko onze drapeaux yooyu jël na benn ca Paladou benn ca Mbam benn ca euh, Maboul jàmme jël benn ca pasi benn ca kebe benn ca Vélingara benn ca Caporel benn ca Toubacouta benn ca Mbelakadiaw benn ca Njuujuuf ak benn ca Ndourène mais li ci gën a neex mooy dëkkam moom Toubacouta drapeau ba moo ko jël donc loolu njàmbaar la aussi ci mbër sa drapeau dëkk ñu tëgg ko ngay champion ca dëkk boobu nga ñëw compétir participer wane sa jom ak sa fula defoo ni ñeneen ñi di def sa koñ organiser nga dem solo ba rafet ñëw bàkkul leen toog mais dafa ngembu jël drapeau ba donc félicitations à Toubacouta bu ñu demee ci ordinateur bi nga xam ne mooy buuru àll bi moom it treize drapeaux la gañe ren en catégorie poids jël na benn ca Marloch ñaaxaar mu jël drapo ba. Foundiougne mu jël drapeau ba Djilor mu jël fa drapeau Fatick mu jël fa drapo Ndangaan mu jël fa drapeau Diohine mu jël fa drapeau Diofior mu jël fa drapeau Combi mu jël fa drapeau Sass Ñaxaar mu jël fa drapo Ndangaan mu jël fa drapo Toucar mu jël fa drapeau Joral mu jël fa drapo donc kooku aussi koy féliciter parce que àll bi moom du ko xëccoog kenn fu ñu dem dañuy gis ni muy battre record bi mën nañ cee citer benn rek ca Ñaxaar fi nga xamante ne nii tey. Euh, le grand promoteur euh, Yaxya Diop ni borom Faata production moo ko organisé woon gis nañ na mu demee donc mu jël drapeau ba ak la manière am ay ténor yu fa ñëwoon ay champion yu fa ñëwoon Serigne Ndiaye de mu nga fa woon Franc mu nga fa woon donc euh, Selemele mu nga fa woon champion yu baree baree bari ñu nga fa woon mais gis nañ liggéey bi nga xam ne ordinateur liggéey na ko ba jël drapeau boobu. bu ñu tuddee rajaxe numéro 2 gis nañu ko douze drapeaux la jël ren ak fi saison bi tolloon ak Covid bi. douze drapeaux yooyu en catégorie poids lour la Sombel jël na fa drapo Sigdat jël na fa drapo Col Colongaan jël na fa drapo Kaolack mu jël fa drapo Buj mu jël fa drapo Senghor mu jël fa drapeau dagga mu jël fa drapeau Ndangaan mu jël fa drapeau Njaafat mu jël fa drapo Ngalañ mu jël fa drapo Kongoli mu jël fa drapeau Bultog mu jël fa drapeau donc kooku aussi Radiakhé de mention spéciale mais bu ngeen xoolee da ngeen di gis ne. ñii ñu cité ñëpp ku ci nekk am nga plus de dix drapeaux Radiakhé douze drapeaux la am ordinateur am treize Toubacouta am onze Ndiol Géant am seize ak fi saison bi toll comme ni ma ko waxee sànq donc dañuy lii day wane ne boo ñii mbëri ay champion lañu mais ñi leen topp aussi di leen suivre di leen wër di leen détecter di xam fan ak fan ak fan la mbëri dem ñooñu aussi ay champion lañ te bokk nañ ci ñiy doxal làmb mais yemuñu foofu ndax tey ku wax làmb wax woy ku wax làmb wax animation animation ci làmb mën naa ne ñaari groupe ñoo koy def mooy timbre major yi mais aussi euh, woykat séeréer yi euh, te gis nañ ñu ci ràññeeku ñoo xamante ne ay ndaanaan lañu bari na sax ñoo xam ne ñu ngi ci mais tey ñu jël ci ñaar ñoo xamante ne nii tey compétition yi ëpp ci euh, ci biir réew mi ñoom ñoo ko anime muy ku ci mel ni ndey faatu Adama Dialy mais aussi ku ci mel ni Mbayang Loum muy ñaar ñoo xamante ni tey boo leen tuddee seeni tur jarut ngay àggale nit ñi xam nañ seen liggéey xam nañ aussi seen tolluwaay ci wàllu làmb donc ñooñu bu ñu leen sargalee sargal nañu làmb tey aussi ci wàllu timbre major yi ñu gis ñaar ñoo xamante ne nii euh, ràññeeku nañ ci bu baax a baax a baax euh, bëri na mbër yoo xam ne bu ñu duggee ci géew dégg seen galañ seen xel day dal ndax euh, li ñu soxla dëgg dëgg dëgg ci baax dañ leen koy jox ku ci mel ni moom mongom ak ku ci mel ni baa bu fay mu nekk ay timbre major yoo xamante ne ni tey kenn dootu leen jàngal li ñuy def mën nañ ko macha allah dañuy ñaan rek yal na yàlla wëral seen loxo te fépp foo xam ne bëgg nañ fa àgg ci seen euh, carrière yal na leen fa yàlla àggale donc foofu aussi da ngay gis ne axlu làmb Sénégal ñu yeewu lañu ñu ubbi seen i bët di xool lañu parce que lii ñu fi lim yëpp amul kenn ku ko mën a contester donc loolu mooy waree ne ñii ay amateur lañ ay vrai amateur yoo xam ne fu làmb nekk ci réew mi danu fay dem dañu koy fekke mais aussi dañuy jël note parce que lii ku amul mémoire bu baax munoo ko noter ku dul jël note aussi ku xamul fi nga jëm ku xamul li nga bëgg bu saison bi jeexee doo def li ni mel donc félicitations encore une fois euh, Akhlu Lamb Sénégal ci njiital euh, Alpha Ly mooy président euh, association boobu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax donc noonu la mën a demee moo tax nag autorités yi nga xam ne ñu ngi ci Mbour ñu ngi ci région bu Thiès. nekk ci département bu mbuur nekk exactement ci sali faw ñu jàppale leen ndax fa la ñu koy defee mënoon nañ ko defee feneen ah tey bu ko indi woon Dakar dañ leen di accueillir à bras ouverts parce que axlu làmb Sénégal jeexal na wax waxuñu axlu làmb Mbour waxuñu axlu làmb Joal waxuñu axlu làmb Thiès mais axlu làmb Sénégal la ñu wax fépp fu ñu euh, jëloon ci biir réew mi fépp foo xam ne nii euh, xalaatoon nañ dem fa organiser fa lii bu ñu demee danañ accueillir à bras ouverts mais heureusement bañ ko defee sali autorité ya fa nekk aussi ya nekk Thiès ya nekk Mbour pare pour accompagner leen gis nañ ko ci mel ni maa Gueye député maire bu Ngeexoox pare pour accompagner leen ci partenaires yi la bokk euh, ñu ngi koy saluer de passage euh, parce que lii la rek accompagner ay nit jàppale ñuy liggéey loolu moom moo am solo euh, Pape ko Diouf aussi maire et député moom aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax gis nañ appui bi nga xamante ne nii ak confiance bi nga xam ne accordé na ko ak Sénégal Ousmane Gueye bu Saly aussi gis nañu ko ci partenaires yi la bokk maire bu ma euh, euh, bu bu Morola aussi ñu gën koo xam ci Yves Lamine Ciss moom aussi ci partenaires yi la bokk donc ñooñu ñoo fas yéene accompagner Ahlou làmb Sénégal muy liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la donc mbokk yi mun naa ne mbokk internet yi wala képp koo xam ne da ngay bëggee làmb waa Ahlou Lamb Sénégal won nan ñu yoon won nañ ñu yoon ci nu ñuy suqalee làmb wan na nu yoon ci naka la ñuy boolee ay nit mais wan na ñu yoon aussi ci xam li nu bëgg xam li nu bokk di ko suuxat ngir mu avancer li tax ñu won ñu yoon ci xam li nu bëgg xam li nu bokk di ko suuxat muy avancer mooy yemuñu si nekk ay simple amateur di consommer làmb mais dañoo bëgg de ñu am loo xam ne day jóge ci ñoom di delluwaat ci làmb tey amateur mooy dagg billet bu làmb neexee moo ko neexal bu ñu defee làmb amateur ñëw dagguñu billet am naa yaakaar ne compétition bu fa amee aussi du neex te mbëri bu ñuy ñibbi aussi du yóbbaale dara ndax billetage bi ci la ñuy génnee loo xam ne moom la ñuy primé mbëri la plupart bokk donc amateur da ci joué bu ama ama am solo mais ci loolu aussi yemut ci dagg biyam dem seetaan làmb mais dafa wëlbatikuwaat làmb ji mu koy suuxat pour bu làmb ji tollee ci benn niveau bi mu rehaussé ko yóbbuwaat ko ci beneen niveau boo xam ne nii nit ñi danañ ko gën a bëgg parce que bu làmb euh, yàqoo amateur kese du perte de. amateur dafa am liggéeyam am ci li mu nekk tey bu liggéeyee ba liggéeyam noppi mu sangu ba set sañse ba rafet xeeñ parfum dem dagg bi yam toog seetaan làmb bu làmb amatut mën na nekkaat ci leneen mais mbër mi nga xam ne làmb la def profession tey bu làmb yàqoo moom lay njëkk a impacté tey ñeneen ñi nga xam ne ñooy euh, ñooy tourner di gravité autour de la lutte nga xam ne nii moom mooy seen gagne-pain bu làmb tey yàqoo ñoom ñoom ñoo ciy gën a souffrir donc axlu Sénégal loolu la xam ba tax na tey mu ngi béy waaram ci làmp